Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen ñëw di am contentement jën ak yéen chaque suba ngi indil leen di gën a fës ci xibaaru làmb laataa loolu nag maa ngi lay fay bu baax a baax di suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV saa su ne di kontaan ci ñoom di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam. asalaamaaleykum nuyu naa de. ne Mbacke maa ngi lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indil leen di gën a fës ci yéen samedi 6 février 2021 suñu làmb xëy ci xëtam bu njëkk à 9 mois de ses 45 ans Bombardier sous la menace de retraite. mel ni B52 bu Mbour Géej bii di Bombardier juróom-ñeenti rek moo ko desee pour mu retraité ci làmb ji su fekkente ni bii yokkuñu àpp bi nga xamante ne bii moom la ñu ne mbër bu ca àggee day daal di retraité muy juróom muy fukki at ak juróom asam. dëgg la Babacar à 9 mois de ses 45 ans Bombardier sous la menace d'une retraite loolu la suñu làmb wax. jëm ci Bombardier nee na daal 9 mois moo ko desee mu jëm retraite su dee CNG bi yokkul âge retraite bi nee nañ Bombardier mi ngi juddu le 1er octobre 1976 donc le 1er octobre 2021 lay am 45 ans ñu fàttali ne euh, Bombardier war na dajeek euh, Balla Gaye 2 euh, combat boobu Gaston Mbengue moo ko tëgg waaye nag am na yaqin ne CNG mu ngi jëm ci yokku âge de la retraite boobu moo tax Bombardier du am problème tellement ci côté boobu. Euh, Petit Baboy Guiro Seras Alliance Baldé euh, trois combattants en quête de relance. mu mel ni ñoom ñett ñooñu nga xamante ne bii journal bi lim na leen euh, mën nañu wax ne ñi ngi ci ay jafe-jafe ndax seen combat yu mujj yi ci ay défaite la ñu jógee kon amateurs yi ak ñi nga xamante ne bii mooy axlu làmb ñi ngi leen di xaaraat bu baax a baax ñu wanewaat seen bopp relancer wu. dëgg la Babacar Petit Baboy Giro Seras ak Alliance Baldé ñii ñu ngi ci ay jafe-jafe moo tax suñu làmb ne ñii ñu ngi enquête euh, pour la relance ndax Giro Seras mi nekk di dóor dóoraat deux défaites la tegale euh, Cheikh Super jamono moo ko mujj daan ak euh, Boy Dakar Alliance Baldé également nekk écurie Abim Ndiaye moom it de défaites la tegale Mathieu Prera ak. caatu rëbës ñoo mujj ci kawam Petit Baboy nekk xam sa cosaan moom victoire tegale ak défaite maanaam dafa daane nekk wurel avant que BMW daane ko waaye ñi ñetti ñëpp journal bi nee nañ daal soxla noonu relancer waat seen carrière coût licence location stade horaire des arbitres enquête sur sur l'organisation des combats en Gambie mu mel ni suñu làmb dafa ñëw ci li nga xamante ne bii moom la làmb di doxee ca dëkk bale di Gambia ñëw nañu wax ñëw nañ ci licence yi njëgu licence yi ni muy demee foofu ca Gambia ak li nga xamante ne bii moom mooy location stade yi ak li nga xamante ne bii moom mooy carte promoteur li nga xam naka la ko promoteur yi amee mu mel ni suñu làmb tey dafa ñëw ci gëstu bu yaatu ci ni làmb di doxee foofu ca Gambia. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la benn enquête bu yaatu la journal suñu làmb def jëm leen ko ci làmb bi am Gambie nga xam ne ñoom seen saison démarré na contrairement ak Sénégal. moo tax mu def benn enquête nag wax na ci location stade yi nee na pour nga am stade foofu location bi cent 500000 lay jar mais nag électricité bi euh, promoteur bi moom moo koy prendre en charge wax na également ci billet dengrais yi nee na. pour que nga mën a am accès ci biir stade yi da ngay fay 1200 2000 3000 wala 5000 francs wax na également lutteurs sénégalais yi jógee fii Sénégal jëm Gambie di bëre balaa ñoo am obligatoirement dañoo war a am licence Gambie. wax na jox na également kàddu ñoo xam ne nii ay sénégalais lan wala Gambien di jëngatu ci làmb ji jox na ci kàddu mbër mi di Bébé Xarañ Bébé Xarañ mi ngi nekk écurie Robinet énergie moom li mu wax mooy que ni luy seen jafe moom mooy bu demee Gambie dañuy am difficulté pour euh, réunir seen fans yi ci benn euh, face à face wala ci combat yi dañ ciy am jafe-jafe lu lool. boo jël na jox na kaat également Jamaïca Jamaïca benn promoteur la xam nañ ko bu baax ci Sénégal. Mm. moom nag ni wax mu ne niveau lutte Gambie. mi ngi mel ni niveau bi Sénégal amoon en 2006 nee na différence bi noonu la da Gambie moom fi Sénégal tolloon 2006 ñoom fi lan toll instant bii nii jox na kàddu également kii di euh, Serigne Modou fay Serigne Modou fay moom mooy président fédération Gambie Gambie bu fa nekk moom mooy seen CNG euh, comme genre CNG quoi. Mhm. moom mooy seen président jox na ko kàddu moom nag li mu wax mooy que ne euh, Gambie depuis quelques mois ñoom seen saison ubbi na ñu ngi bëre normalement. kon mën nañu jàpp ne foofu ca Gambie lamb ja ma ngay dox mhm. L'Assemblée du Gambie, Madame le président Arels, que le démarrage se fasse au plus tard le 15 février. Madame ngi moom mi nga xamante ne bii moo jiite kuréel gi ñuy wax Arel moom nee na bu sañoon làmb ji ubbi avant le 15 février ndax su ko defee mbër yi mën a bëriwaat amateurs yi seen xol man a seddaat bu baax a baax. dëgg la Babacar Malick moom mooy président euh, ARELS ARELS moom mooy association des responsables des écuries et écoles de lutte du Sénégal moom nag li mu fa xam ne mooy bëgg-bëggam la fa wax nee na daal bëgg na euh, saison bi démarrer au plus tard le 15 février bii di ñëw maanaam de moins de 10 jours pratiquement 9 jour exactement nee na euh, la ñoom accepté nañ condition yi état bi teg yëpp pour que saison bi démarrer léegi daal décision Matar Ba la ñuy xaar pour saison bi démarrer. ba léegi ca Gambia bi la ñuy descendre lutte lutte simple en Gambie ce week-end incha allah 3 bœufs et 60 000 francs mi janvier. mi ngi noonu mu mel ni ni ma ko waxee sànq Gambia làmb ja ma ngi fay dox 5-5 week-end bii ñu dëgmal incha allah dana fa am làmb ba nga xam ne diggante samedi ak dimanche lay doon nga xamante ni bii teg nañ ca li nga xam ne ñetti nag ak fukki junni ak ñaar. dëgg la Babacar am dalaay lay am làmb boobu di amee tey lay door sax maanaam tey ji samedi gi euh, kii di am jànko jànko moom moo koy tëgg moom nag teg na 3 ak trois bë ak 60 mille francs nee na El Hadj ak faatu Ndiaye ñoom ñooy tëgg ñoom ñooy animé làmb jooju. Euh, assurance pour se pour se relever. assurance pour se relever contre Gambien après bi mu jógee ci défaite bi nga xam te ni Tyson 2 moo ko daanoon. gannaaw ba ko Tyson 2 daanee mbër mi di assurance dëkk fële ca Mbour Géej mu mel ni mi ngi waajal combat bi di nar a dox ci digganteem ak Gambien mu ne dinañ gis beneen as beneen assurance bu ñu gisul woon dinañ gis assurance bu bees tàq asal. dëgg la Babacar assurance défait par Tyson 2 le 28 juillet 2018. Euh, assurance bëgg na mi ngi jàkkaarloo ak Gambien li ñu ci bëgg moom mooy relancer carrière am ndaxte euh, bi koy Tyson 2 di daane boobu Tyson 2 mi ngi woon ci bul faale bul faale sant yi foofu la Gambien nekk léegi na dafa bëgg fayu nee na mi ngi jëm en guerre je suis je vais en guerre noonu ko waxee te dina wan euh, Gambien ne moo ko gën a fort moo ko dàq bëri. États-Unis lañ jëm Garga Mbossé converti en américain aux États-Unis mu mel ni dafa def lu am solo Garga Mbossé parce que dafa jël benn américain dugal ko ci diine l'islam muy geste ba nga xamante ne bii ñu ngi koy saluer bu baax a baax di la nga xam ne ñépp a koy rafetlu Garga Mbossé def lu mel noonu li dëgg la Babacar bi mu koy def ay vidéo la filmé wax euh, tëriloo leen li li ngay tëri pour que nga mën dugg ci lislaam ni mu ko euh, après mu filmé vidéo yooyu publié ko mu nekk vidéo yoo xam ne nit ñu bëri saluer nañ ko euh, maanaam boo jógee Sénégal nekk jullit boo demee am occasion yi waroo ko raté Sénégal yëpp di rafetlu loolu. am na solo. ko ñu bisi mooy Reug Reug champion MMA boobu ñoo doon démb nit ki démb. gannaaw ba mu jogantee ba pare am ci ndam Sénégal yëpp doon ko ñaanal mu am ci ndam tamit jógee na fa dëkk bale di États-Unis d'Amérique ñibbisi Sénégal wante bi mu ñibbisee dëkk ba fa fale di dëkkam di caaro euh, yi dañ koo teeru comme ni ñuy teeroo buur. dëgg la Babacar démb gis ngeen ko ci vidéo yi ginnaaw bi mu daanee Pierre Alain Ngalani le 22 janvier bi passé sa Singapour. dellu New York jóge na New York nag démb la ñëw Sénégal bu mu ñëwee tamit euh, gars yi teeru nañ ko tatagal ko remercier ko ci victoire bi mu am waaye mu yëkkati kàddu nag remercier sénégalais wax nan la daanee ngalaani waaye également mu delloo place am guy gi buñ ko mënee waxee noonu. kontaanee ne xeex Covid 19 ak Ama Baldé sëll bu ndaw boobu mooy wéyandi koñam la koy commencé incha allah. mu mel ni moom dafa jóg ngir xeex mbas mi nga xamante ne bii moom moo lëmbee àdduna wante tamit moom moo gàllankoor làmb ji nga xam ne ci la Ama Baldé bokk moom mu jóg ngir jël li nekk ci poosam génne ci ngir xeex feebar bii nga xamante ne bii moom mooy coronavirus. dëgg la baarukaan ni nga ko waxee noonu la Ama Baldé ginnaaw bi mbas mi tëralee wala sonal ñu bëri ci sénégalais moom nag dafa génne kopparam ci poosam pour jàppale sénégalais ci wàll woo moo tax tey dina jógee Pikine dina jaar mbaaw dina dem ba Kër Massar lu mu fay def nag mooy séddale ay masque ay gel antiseptique loolu lépp pour xeex mbas mi euh, sonal nit ñi. ma léegi ca lamb ji lañ def Papa Boy Djiné offre 500000 à sa femme. le jour de son anniversaire. Papa Boy Djiné mooy borom këru Ndeye Gueye Ndeye Gueye mooy fecckat boobu nga xamante ne bi nekkatul ku ñuy présenté ci Sénégal macha allah ndax mën na li muy def lool. anniversaire am nag borom këram bii di Papa booy Djiné di mbër nekk ci biir làmb ji yëkkati téeméeru junne may ko ko yaakaar naa la mu def rafet na. geste bu rafet Babacar képp kuy borom kër war na inspiré ci. ah soo ko mënee tamit. d' accord mais mu nekk geste bu rafet. mu di def anniversaire mu njëkk di somme boobu jox ko pour en tant que comme cadeau. je pense que eh, mari yëpp war mari yëpp war nañu inspiré ci geste boobu. Hmm. fan yi jeexantale ak suñu lamb mooy Yawou mu mel ni ñoom ñaar. boo gisee kii mm. gis kee ñoom ñaar kenn mënu leen a tàggale mm. mais nag ay adversaire la ñu woon ci làmb ji doon bëri bëri yu neex combat yu neex yi nga xamante ne bi amateur yépp ci seen xol moo ci doon sedd wante tey ñoom ñaar kenn mënu leen a tàggale ay doomu ndey lañu c'est vrai Babacar làmb parfois sport la boo xam ne nii day dajale gis nañ diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux gis nañ diggante Modou Lo ak Papa Sow. Mm. Yawou Dial ak euh, Bodi RFM également noonu la demee ginnaaw bi ñu yàgg bëree léegi mm. ay xarit lan fu ñu jëm maanaam euh, daanaka ñoom ñooy ànd gis nañ leen Leewtoo TV bi ñu fi ñëwee def émission bu neex ñëpp salué ko. Mm. léegi daal fu ñu jëm daal journal suñu mu nee ne kenn du leen taaxalee te ay xarit dëgg la. loolu mooy rôle làmb boole mais partage lan nga tàggatoo Mbaye Babacar jaajëfal ñëpp kontaan ci ñëpp wante di jaajëfal bu baax a baax waa Diourbel sama dëkk waa Bawol maa ngi leen di kontaane di leen ñaanal jàmm di jaajëfal suñu mbokk internet yi ñu doon topp ci Leewtoo TV di leen di daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon asalwaala mm, Ndeye Mbacke di la remercier di remercier Babacar comme d'habitude di remercier ak di sant waa Linguère bu baax a baax a baax di jox dig daje internetu Leewtoo TV lundi prochain incha allah balaa jaaxal jaaxal <laughs> fa la ñuy jaaree képp man li nga xam mooy xibaar lamb bi man moom pour ma part maa ngi sant remercier waa Parcelles Assainies 1 ba 26 bàyyiwuma kenn di leen jaajëfaloon mbokk internet Leewtoo TV ci nuyoo bi ñu ngi ciy jiital Pape Thialis Faye borom kër gi di ko nuyu di ko ñaanal kenn dal ak jàmm nii nii la doon demee ñu ngi jox di daje ëllëg incha allah bon week